ni avant Covid bi prix baril bi wàññeeku woon euh, mi ngi woon ci 65 je pense et quelques dollars actuellement gis nañ ne amoon na baisse ci biir Covid bi wàcc na ba fi mu toll ni mu ngi si 42 euh, et quelques 42 point 1 si je léegi nag mu gis ni wàññeeku boobu pétrole bi wàññeeku si biir Covid bi fii Sénégal yëguñu ko ndaxte gis nañ ne Sénégal essence bi wàññeekuwul. courant bi wàññeekuwul euh, fi nga xam ne daal pétrole waroon na fa impacté ba mu wàññeeku wàññeekuwul ñu di lay laaj loolu lu ko waral. waaw xam nga euh, déjà euh, di rafetlu sa question bi ndax li nga wax dëgg la avant jàngoro ji di am mbas mi ci àdduna pétrole barigo bi mu ngi doon jar juróom benn fukk ak ñett ci dollar Euh, ba feebar bi amee. ci diggante boobu moom ay jafe-jafe yu am ci diggante réew yi nga xam ni ñoom nooy gas tey génne pétrole te di koy jaay. te gën cee ràññee arabu saoudite gën cee ràññee euh, États-Unis Amérique. ak euh, ñi nga xam ne noonu waa Russie Union soviétique. ci xat-xat yi amoon seen diggante ak coow ak xëccoo dem ba njëgu pétrole bi bay at mi door. mois de janvier euh, baril bi wàññeeku na 63 dollars dem ba 30 30 30 dollars maanaam fanweeri euh, fanweeri dollars ci baril bu ne. Hmm. loolu kenn mësu kaa ci àdduna. ni mu wàcce woon noonu wàcce waay bu rëy rëy rëy. Hmm. noonu nu dem tuuti euh, jàngoro ji gën a tar jóge Chine dugg biir Europe te nga li xew Espagne Italie duggu biir États-Unis dugg wër àdduna bi yëpp. Hmm. ba loolu amee it njëg gi gën a daanu. dem nañ ba sax. am na ay teenu pétrole yoo xam ni dañ woon sax jaratu nga koy gas ndax ni ngay dépenser pour génne benn bërigo pétrole soo jaayee bërigo ba doo ko am njëg di wàcc di wàcc ba 30 dollars te yi ban xëyee euh, seen passé ak tey euh, njëggi gi ma ngi ci ñeent fukki dollars ak ñaar ci bërigo bu ne nga laaj nag ni lu tax euh, loolu amul njeexital fii ci senegal Euh, xam nga euh, pétrole euh, bu njëggi wàccee tey tekkiwul ni day wàññeeku cim réew. Mm-hmm. parce que pétrole bi ngay jëfandikoo ñetti weer ca kanam tey ji nga koy commandé. Mm-hmm. donc du question wàcc na léegi rek da koy jënd léegi parce que da ngay commandé pétrole. Mm-hmm. ni nan la livré bateau pétrole maanaam ci mois de décembre. njëgu tey nga koy jëndee. njëgu tey nga koy jënde mais doo ko jënd njëgu décembre. njëg yi nga koy jënd nag suñ koy indi loolu la koy livré mm. kon booy def ay calcul baa ngay def ay njënd ak jaay dooni rek njëg gi wàcc na léegi dama koy jaay léegi maanaam suñ ko doon suñ doon xool tey jii euh, su fekkoon dafa am marchandise yow boo war a jënd. Mm. nga war a jënd benn marchandise euh, nan jàpp ni par exemple nga waroon jënd ceeb. noonu mm. la tonne ceeb ma ngi jar deux cent soixante dix mille francs nga jënd ko tey. dem ñu war la kaa livrer mois de décembre fay nga contrat yi ba pare jënd ko ko pare. Hmm. waaye du question prix bi changé na ci diggante bi dañuy changé prix ba nga ko waroon jëndee. Hmm. loolu lépp nag ci wàllu pétrole ak ci wàllu li ñuy tuddee affaire mine ak yooyu. Hmm. am na ay xarañte yoo xam ne état yi dañ koy def ak ñi nga xam ne dañuy exploité pour que changement yooyu mën a am coppite yooyu mën a am ci biir prix yi nan ngay mën a fexe ba am ay assurance su fekkoon da jënd tey barigo pétrole tey jii 42 dollars mooy bisu tey. nu xëy ginnaaw suba baril bi nekk cent 100 dollars de dollars nga koy jëndee. parce que 42 dollars moom nga waxoon lool la contrat bi waxoon. noonu tamit lay am bu fekkee soppeeku wàcceeku am na nguur gi tamit a ñuy jëndoon naa 42 damay jaayee 30 ba 25 kon sinon day am euh, xaalis bu bëri alal bëri yoo xam day te dañ jàpp ni euh, noonu lay mbir mi di doxee. ñàkku nag xëy na su fekkee changement yi dem na ba gën a yokk dina amal jeexital ci réew mi mais dafa naa ni euh, loolu day nekk réew yi nga xam ne mooy réew yi nga xam ne dañuy jëriñoo pétrole mais gasuñu ko hmm. mais réew moo xam yow da nga nar a fas yéene gas pétrole hmm. ak di koy jaay hmm. baa ngay gas pétrole di koy jaay njëggu wàññeeku arrangé wu la ndax pétrole bi ngay gas ak ba ngay jaay te ngay jëlee koom-koom pour doxal sam réew day xool ba njëgu pétrole yi wàññeekoo am na ay réew yu bëri yoo xam ni yu mel ni euh, du leen tudd ci fii waaye am na ay réew yu bëri yoo xam ni seen koom-koom dafa wàcc am na ñoo xam ne ci biir Afrique dem na ba sax seen budget bi defoon ci at mi dañ kaa xaaj ci digg bi indi ay jafe-jafe yu bëri ci biir yooyu ay wàllu ci seen wàllu koom-koom ci seen wàllu euh, ay yëngatu am fa mm-hmm. ay lu mel ni ay grève ak leneen ak leneen lu ko waral kon euh, njëgu pétrole muy wàññeeku continue di wàññeeku lu baax la ci ñi nga xam ne dañ koy jariñoo mm-hmm. waaye du lu baax ci ñoo xam ne dañoo fas yéene liggéey ak gasaka def mm-hmm. même ñi nga xam ni am na euh, euh, ñu mel ni Sénégal nga xam ni dañoo fas yéene. Mm-hmm. foofu laa ñëw voilà foofu laa ñëw sax. Sénégal gis nañ ni que avant Covid bi avancé woon nañ trop ba pare teg ne en deux mille vingt deux. je pense dinañ commencé exploiter gaz bi. Oui. Euh, pétrole bi s'ensuit léegi fi mu toll nii fu lan lañ toll ci loolu ndax dañ ciy gis noppi bu mat sëkk. waaw xam nga euh, pétrole gaz ak lu mu mënti doon dafa am ñu ko soxla. Mm. bu ko kenn soxlawul kenn du ko kenn du ko génne. Mm. te lu ko nit ñi soxla soxla soxla soxla alal ja nga ca nar a def pour génne ko su tolloowul ak alal ja nga nar a jot soo ko jaayee doo ko def mm. loolu ci wàllu économie la doo doo jaay doo jënd dërëm jaayee dërëm. Mm. soo jëndee dërëm da nga koy jaayee dërëm ak fifteen. Mm. dërëm ak darab mm. pour mën ci am loo ci jariñoo kon euh, Sénégal jamono juñ toll euh, li nga xam ne moom mooy gaz bi nga xam ne nekk na ci diggante Sénégal ak Mauritanie. Euh, donte am na benn tardement bu ndaw boo xam ni dina ci am. waaye ñi nga xam ne mooy nguur yi ñoom ñoo ngi jàpp deux mille vingt pour génne gaz boobu. kon foofu jafe-jafe amu fa. jafe-jafe euh, bi nga xam ni euh, noo ngi koy xool te ni ñu bëri yaakaar day am te gëmunu parce que ci prix pétrole la basé wu. Mm. sooy xool tey jii ñi nga xam ne moom mooy pétrole bi ñu wax ma ngi nekk Sangomar te nu fa yéene woon fii ak deux mille vingt quatre euh, génne cent mille baril. Mm. téeméeri junni baril pétrole foofu par bis. Mm. loolu soo koy xool am na société yu koy seq. dégg ngeen ci weer yee passé kenn ci noom nga xam ni sooy xaaj seen ku nekk la nga moom ca projet ba ñoom am nañ ci eh, téeméer bu ne fukk ak juróom ñoom xamal nañ ni am nañ jafe-jafe pour seen wàll ci quatre ñeenti milliards yu topp ci wàllu xaalisu Amérique dollar seen wàll maanaam fukki eh, téeméer bu neen war a ci fukk ak juróom mooy quinze pour cent mm-hmm. am nañ jafe-jafe pour indi seen wàll ca liggéey ba loolu nekk na loo xam ne noonu koy waxtaanee seen biir te loolu tamit du loo xam ne du gulet ci wàllu ndax boo nekkee ci wàllu pétrole ak wàllu miin mm-hmm. loolu dul gulet. Mm-hmm. parce que looy dis projet pétrole ba projet mine. Mm-hmm. ak bu mu ti doon rek na la leer ni sooy ñi ngay def da nga koy jaay te ña ngi koy jaay dañ ciy def benn prix. prix boobu nag boo ko matulee baa nga amoon yaakaar ni par exemple ñun ñëpp amoon nañ yaakaar ni baril pétrole donc ko jëlee 63 dollars. ci deux mille dix neuf ay mois de décembre. gis nga ni mu wàccee ba trente dollars ay ba coronavirus bi commencé. ñëw tey jii ba quarante deux dollars di yéegaat ndànk. mais ni amoon nañ yaakaar jamono juñ toll nii tey jii xëy na tey fi ñu taxaw di wax barigo pétrole doon na jar juróom-ñaar fukki dollars. xam nga nga jël sa projet. calculer ni man su ma gasee génne maa ngi koy jaayee juróom-ñaar fukki dollars. Mm. avant ngay commencé dugal sa xaalis njëgg di daanu njëgg di daanu ba egg 42 dollars 32 dollars doo ni da ngay bàyyi projet ba waaye da ngay nëggandiku baa nga xoolaat nan nga koy liggéeyee. Hmm. ndax kenn du liggéey pour perte. donc euh, nan am xel am euh, am dal xam ni noonu lay yëfi di doxe hmm. mais yëfi di doxe noonu tekkiwul ni yëfi dafa taxaw. Hmm. waaye parce que dafa am ay analyse yoo xam ni euh, ñiy liggéey ci wàll woowu xam nañ ko. lii du bettu leen maanaam lu nu xam la lu nu jàng la lu nu mën a def la. bu ko defee euh, bu yàlla defee jàmm prix yi delluwaat ci na mu war a dollu projet yëpp du Sénégal rek. Mm. mais adduna bi yëpp la. tey jii boo demee États-Unis am na ay teenu pétrole yoo xam ne arrêté nañ leen parce que njëg gi ñuy jaayee mun noo fexe fexe ba am ci bénéfice. Mm. te loolu euh, am nañ yaakaar ni du nu dal gaz bi incha allah am nañ ci yaakaar ni 2023 gaz bi nekk ci diggante Sénégal ak Mauritanie. di leen ko exploité wàllu pétrole bi ñi ko seq nooy continuer di liggéey prix nooy gën a yéegaat 42 dollars tey jii. Hmm. am nañ yaakaar ni xëy na fi ki euh, fan am na ci yaakaar parce que tamit day dundee yaakaar ba lu mu la néew fi ki ay weer bu fekkee vaccin am na ci wàllu coronavirus bi ba ñëpp commencé di yëngatuwaat yëng économie bi di dox. Hmm. avion yi di nekk di yëngatuwaat bateau yi ku nekk di dem lu boobu consommation pétrole dina yokk. Hmm. te consommation pétrole bu yokkee. tey jii mën na noo am ni prix day yokk te su prix yokkee projet yëpp commencé waat donc daal loolu lañ ci mën a am di koy wax. te mm. dalal xelu doomu aadama yi xam ne noonu mooy wàllu liggéey liggéey boo gis nag. Mm. da yenn saa yi nga xëy euh, ci ci fànn wu ne nga calculer ni li ngay def. boo demee ba ci biir leneen xew. la fa euh, ci pétrole bi toujours gisoon nañ ne que amoon na ay lënc lënc yu bëri ci wàllu euh, ki ñuy wax Aline ñu gis ne que juge daanaka relaxé nañ ko ndax ñu ngi lii ci information yi ne léegi dañuy seet euh, une personne X te waa division des investigations woote woon nañ pour képp ku ci am témoignage nga indi amoon na vingt six personnes yoo xam ne ñëw nañu témoigner waaye gis nañ ni mbir moomu euh, c'est maintenant au ralenti loolu lan nga si mën a àddu. waaw non xam nga tamit euh, bu nekkee ci état boo xam ne état de droit la. réew moo xam ni dañ kaa teg ci yoon nu jël yoon jébal ko dossier ndax yoon mooy fi nga xam ne mooy ëttu attekaay bi nga xam ne ñëpp dañoo ànd ni bu jafe-jafe amee su werante amee nan ñu ñëpp nu maanu àndandoo jox yoon yoon yore dossier ba xam naa ni dossier ba ci foofu la toll kon xam nga suñu wax ci loolu du mën a bëri parce que yëfi euh, yoon la mais li jiitu loolu euh, euh, da nga daan dégg ni ñi di wax di indi ay jaxase wax joo xam ni mu àndul euh, te lin nekk nun ci réew mi ne euh, président la république nekk na déjà koo xam ni xam na luy géologie xam na luy pétrole nekk na ci pétrole mm-hmm. digi ci loolu actuellement situation géopolitique impact euh, Covid bi ci situation géopolitique exploitation prochaine du pétrole bi scandale yi nga xam ne am na ceeg yooyu mën nga ci ñu ci defal un résumé boo xam ne c'est au profit de la population. waaw fa laa jëm nii xam nga euh, moo tax ma lay wax ni président de la république euh, ku ci ànd ak dal la ak tey euh, tamit xam na secteur bi nekk xam nga lu mel ni wàllu pétrole dama koy faral toujours di wax ni dafa am ñetti façon xeetu. Euh, koom-koom boo ko amee sam réew coow day bëri lu mel ni pétrole lu mel ni jamaa lu mel ni wurus parce que doomu aadama yi toujours loolu fu mu am fu nekk rek il faut nu ne am na lu ci lëndëm mbaa lu ci leerul waaye boo nekkee ci nguur euh, doomu aadama yi wóolu la am yaakaar ci yow sa wareef mooy nga leeralal leen suñ xamulee nga leen ni lii la. Mm. parce que loolu lañ leen yoreel loolu lan séq doomu aadama yi loolu lan séq nit ñi. te tey jii ba nu defee procédure bi nga xam ne moo tax pétrole bi tey ba nu war kaa mën a génne nit ñi commencé naan leer nag leerul malgré li état bi wax lépp ci information ku nekk nii leer nag leerul. Mm-hmm. la gën a leer mooy li état bi def mooy nu jël lépp jébbal ko yoon. bu ko defee bu la ca yoon waxee nu xam ne loolu la kon tey jii foofu lañu ci mën a toll mais euh, il faut que nit ñi am dal. dal gi mooy euh, Sénégal kenn commencé gul exploiter pétrole kenn commencé gul exploiter gaz. looloo waral nag mënuñoo dal ndax mënuñoo dal ci loo xam ne commencé guñ ko sax te ñu ngi ciy dégg ay lënc-lënc. waaw non dégg ay lënc-lënc man li ma gënal mooy dégg man teg sama teg sama baaraam xam nga teg sama baaraam moo gën foofu dégg naa. gis naa moo gën dégg naa. waaye comme ni nga ko waxee dañ ñoo war a leeral te leeraluñu ba dem ba ñuy jël ay slogan naan suñu 400000. waaw non xam nga suñu 400000. leeral donc euh, askan bi defe naa bu ñu leen tegaloon lu leer nañ noir sur blanc. waaw du ñu laajte li nga xam ne. non d' accord naa ne askan bi tegal na leen lu leer naa xam nga lii bëgg gis ak lii laa bëgg a dégg bokkul ak ne parce que euh, doomu aadama yi di ci ëpp nag du ci Sénégal rek réew yu bëri la nit ñi nooy euh, nit ñi nooy ñaaw njort. nit ñu nooy ñaaw ñor tax nee naa la genre euh, lu mel ni pétrole jamaa or fu mu fër nekk toujours da digg naan la way or baa ngay jóge Kédougou ma ngay dem fayee di suñu diamant bi di suñu pétrole bi suñuy quatre cent mille affaire bu demul noonu su fekkee tey jii sax pétrole bi génne nañ ko mais du question man dama ci am quatre cent mille baa nga am quatre cent ndax déggoonu ni la président constitution. quatre cent mille yi boo ko déggee genre slogan la bu bëri boobu yëpp. ak nombre de population déedéet xaalis bu bëri boobu tekkiwul ni xaalisu Sénégal waaye loolu bu génn bu fekkoon tey génn na tey man su ma waree jënd essence bu ma ko waroon jëndee six cent cinquante dinaa ko jëndee demul noonu. loolu loolu moo tax c'est-à-dire que affaire pàccoo boobu nañ ko séddoo sama wàllu demul noonu <laughs> su demoon noonu doon ko fekk parce que tamit àdduna yemul ci nun xanaa d'ici cent ans da ngeen bëgg Sénégal jeex. waaw mais pétrole bi su génnee tey nga foog ne ñun suñu vie warul changer ñu féex. seen vie ñun loolu la ñuy xeex instant bi askan bi day bañ. li dal yeneen dëkk yi dal Sénégal. li dal pétrole génn fa ñu gën a pauvre ñii doon riche di gën a riche lekk seen alal di koy gën a jëriñoo. waaw non tax ñuy jóg. waaw loolu des loolu euh, loolu du xam nga tax du am benn euh, pétrole bi la. président Macky Sall ba muy ñëw def PSE 2014 la ba ñuy bind PSE naan dañuy def Sénégal émergent kenn boolewu ci pétrole bi kenn boolewu ci gaz bi soo xoolee euh, PSE document original PSE gaz ak pétrole ñaari yoon lañ ko ci euh, liñ ko ci wax bëriwul ba ñuy wax gaz noo ngi xool na la amee gaz pour que courant bi doon coupé mm. na la fexe ba ban am courant boo xam ni. dañuy utile gaz ba ñuy wax pétrole ci document PSE kenn waxuloon ay exploité pétrole mais doon wax naan pétrole bi na la fexee ba prix yi wàññeeku foofu lañ tolloon donc li nga xam ni moom mooy programme bi nga xam ni moom la Sénégal war a nekk ni ko ci doxee mooy président PSE PSE loolu boolewuñu ci pétrole bi kon waaye bi ci pétrole bi ci pétrole doole nag gis nañ ne ñëw ñu taxawal PSE bi jiitu nañ ci. taxaw ci ci kanam. de déedéet loolu nga yaakaar. ah Alioune Sall bokkul Sall sénégalais la comme tout le monde. waaye kan la. mais Alioune Sall tudd. c'est un sénégalais lan la bokk président de mais bokk est-ce que. Sall la sant mais mais mais mu sant Sall bokk président de la République tekkiwul ni amul sañ-sañ ci réew mi. waaye loolu may privilège boobu may ko tey mu mën a teg loxoom ci lu bëree bëri. non non non teg loxoom ci lu bëri kooku c'est à démontrer parce que pour nga mën a démontrer dafa teg loxoom ci da naan lii la teg loxoom nii. il faut nga teg sa loxo sa à que tamit xam ma sooy waxtaan ci mbir euh, mën nga cee wax yi nga xalaat waaye man li ma gënal moom loolu la sama waajur daan wax euh, wax sa xalaat daal li gën a wóor mooy nga xalaat sa wax li gën a wóor mooy nga xalaat sa wax waaye wax sa xalaat rek wax sa xalaat rek nga baal ma ak dof moo koy def. kon daal da nga bëgg a wax ni sénégalais yi. déedéet ñëw ma de dama ni wax sa xalaat boo génnee ci biti ngay wax sa xalaat rek loo loo xalaat wax ko kooku ku ànd ak sagoom du ko def ku ànd ak sago daal da ngay xalaat li ngay wax te li ngay xalaat li ngay wax mooy da koy teg ci ay firnde te comme que kii nee na lii kee lee benn firnde rek moo ci mën a am mooy yoon bi nga xam ne moom la fi yoon teg mu wax nu li ci ne mais sinon lay mu ta ne mais pétrole bu génnagul baa nga def say calcul ni léegi bu ñuy génnee cent mille barils par jour boo ko multiplier tey tey la 42 dollars ah seen 400 mille sax xam naa ne wàññeeku na ndax léegi <laughs> léegi noo ngi ci 42 dollars ah 42 dollars nga ko par cent mille ñaata la léegi nga bëgg a génne xanaa kay nag dooma nii boo boo ko multiplier 42 par cent mille lam lay jox mooy bénéfice ba déedéet ndax kay bala nga kaa génne am nga loo ci dépensé am nga alal yoo ci dugal alal jooju xanaa na koy récupérer am na loo ci def nangam nangam la ca des mooy mooy profit ba profit ba kay xanaa la ñuy jéem a séddoo kon ay samay 400000 samay 100000 samay 200000 loolu yaakaar naa ne ay slogan la li ci am solo daal mooy lépp loo xam ni war na ci réew mi nu war a fexe ba pétrole bi suñ ko gasee mu nekk loo xam ne lu ñuy xam la ni nangami baril moo génn te pétrole kenn mënta nëbbu njëg gi ndax tey jii Sénégal bu ñu génnee mille baril tey jii le le 22 le 22. tey jii suñu génnoon 100000 baril jàppal ni da ngay jël 100000 nga multiplier ko par 42 mooy njëg gi. loolu amul lu ci nëbb maintenant am na beneen côté boo xam ne moom mooy nga gérer ay coûts yi ca nekk ak lii nga def ma ci nangam xaalis bi da nga def avant nga génne benn baril loolu ay yeneen calcul la mais tekkiwul nag Sénégal bu jotee wàllam ba pare dañuy xool ñaata nit fi nekk 15 millions ñu séddale ko ku ne def sa poche. Mm. mais kon nag sunuy doom ak sunuy set yi ñëw ëllëg nu ñuy def ak ñoom dañuy lekk seen wàll. moo tax président calculer ci li muy liggéeyee benn loi boo xam ne dafay am ñaari part nun ñi nga xam ne noo fekkee li leen ci am ñi ñii ñëw ëllëg li leen ci am. yaa ngi ne si biir sa waxtaan ne que gaz bi dañ doon xool nuñ koy amee ngir wàññi courant bi. loola mooy foofu nag laay ñëw. 2012 laa la wax. waaw 2012 nga ne loolu lañ doon seet. waaw nu ñuy amee gaz bi pour wàññi courant bi. far nag ñu gis ne mën nañ am gaz 2023. waaw ñu ngi nekk ci yaakaar ne lépp dina baax. ñu daal di nag daje problème Akilee Senelec foofu laay ñëw. waaw non yaa ngi ñëw foofu waaye tamit gaz bi déjà nañ ci njëkk wax pare avant ah, ngay dem ci Akilee. waxal eh, gaz bi eh, déjà xam nga ne Sénégalu tey ak Sénégalu 2012 bokkunu Sénégalu tey jii sooy xool ci at mi li fi am ci courant bu coupé soo koy wàññi. matul sax weer ci at mi. te xam ngeen ni 2012 bu courant daan tàkk nu ñëppay tàcc di yuuxu naan courant ñëw na. nest pas. waaye coupé moo doon euh, la règle. courant ñëw moo nekkoon l'exception. waaye li fi yokk tam si njëgu courant. waaw waaw mais man de courant yi. ak woyefal yi nga xam ne boo dugalee. waaw mais loolu mu jeex te euh, kenn du la jox explication. adduna dara dara dara dara yemul nan ñaan yàlla. saa yu courant yokkee yàlla yokk sunu mëneel ak sunu koom-koom. suñ ko bàyyee suñu seetaanee noonu moom mbaa dina baax. non non dina baax parce que nan nan ñaan yàlla lu mënti yokk rek nan yàlla yokkal nun te Sénégal gi yëpp nu ñaan ñëpp ku nekk sa koom-koom di yokk sa poos dara gën caa sa lafu sër dara na ca. ñu bàyyi ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci ginnaaw di yokk di jëriñoo suñu alal. noonu di ñaan yàlla kan moo yokk kan yokk ak di ah ñi ko yor xanaa. ñoo ñan la. ñan ñoo yor courant. courant ñu ko yore état bee ko yore. état bee ko yore. état moo ko yore kon daal ñun ñu seetaan nguur gi état mu yoree ko courant bi mu ñu yokkal courant gi. déedéet ñuy ñaan yàlla luñ ko fay. état ba mu yoree courant bi lam cey jëlee ba jafe-jafe amee jël na 65 milliards jënd ceeb séddale ak dawlin ci Covid bi. ah léegi nga ne loolu. non dama ni xam nga état bu yàqu a xaalis bi ñu yàq. ndax bu fekkoon dañ doon jël alalu réew mi di koy yàq kon bu jafe-jafe amee du fu neen fu neen koy jëlee. ceeb bi kon na nga foog ne alal googu lañ jël jëndee ko ceeb bi. mais alal réew mi lañu jëlee. waaw mais Covid bi fan nga déggee benn réew Covid mu commencé ñaata entreprise ñaata partenaire ñoo génne xaalis dugal ko ci Sénégal. waaw dama ne loolu lépp ñaata la calculé nga ko. li ñu calculé mooy li ñu laajte. waaw waaw ne ne 1000 milliards. 1000 ko. ñu bëree bëri an 1000 milliards yi soo ci dajalee tey. xaalis participation bi entreprise yi participer socialement. waaw nga dajale ci partenaires yi ñu àll. ñaata la li nga xam ne moo nekkoon suñu kees. ñaata la loolu yëpp boo ko boole kay du loo xam ne loolu nguur gi dencoon. pour pour faj soxla de nguur gi lim ci def. Ah. nguur gi lim def ci alal ci alal nguur gi. Hmm. loolu lu nguur gi liggéey la. moo tax il faut tamit ñuy ànd ak dal euh, te bañ a yaakaar ni loo xamul rek dafa lëndam baa loo gisul rek. dañ ko fay ndax nit ñi duñu gis ñi nga xam ne la ñuy ñoom la ñuy dénk suñu alal duñu leen gis ñu toog. mais xam nga ni di wax ak ñoom di leen leeralal di leen faram-fàcceel. waaw loolu loolu c'est euh, moo tax. Euh, te dañ leen di gis ci yeneen anam. waaw non. Euh, di leen gis ci ay puukare soo dénkee nit sa alal boo soxlaa lu la leer doo ko gis nga xëy gis ko muy puukare muy def leneen ak leneen ci dëkk bi yow nga nekk ci coono loolu nga foog ne kooku. dina dal waaw président de la république moom mi nga xam ni moom la askan bi fal moom la askan bi jiital jël ko wóolu ko d'accord ci politikam képp koo xam ni président teg na la ci wetam ba am na yaakaar ci yow ba wóolu na la pour nga jàppale ko ci liggéey bi ci fànn wóor ne war ngaa mën a waxtaan ak askan bi ci la ngay def ndax président mënul def loolu ndax loolu mu ngi ci yeneen situation ak yeneen donc ku ne ak ci la nga ne war ngaa mën a taxaw nga expliquer askan bi lan ngay def ak lan la président sant la nga nekk ca boo xoolee même référendum 2016 président dafa dugal euh, ci biir référendum bi assemblée nationale nu am pouvoir de contrôler politique publique bi mm-hmm. kon ku bëggulu leer amul looy làq dooni may naa ku nekk ñëw xool gis donc moom nag mënut a nekk fépp mënut a wax ak ñëpp li mën mooy ba jafe-jafe ji amee depuis début d'année bi ba léegi saa yi waree génn jàkkaaroog Sénégalais yi wax leen fu mu toll ci wàllu xeex bi jël mesure yi mu war a jël wax ak moom li ci des nag mooy ñi nga xam ni yaa ngi liggéey baa nga nekk ci wetam di koy jàppale nga jéem a fexe ba di fësal li nga xam ne ma ngi koy def ba li nga xam ne askan bi xamuñu ko nga leeral leen ko te nu te nun ñii nekk askan bi nu fi tax a toog askan bi noonu wóolu jox nuy moyen kon su fekkee am na lu ñu bëgg leer na leen ko leeralal waaye suñ leen ko leeralul bàyyi leen ci noonu nuy wax ma sàmba ma penda ma faatim ku nekk leen di wax dañuy yaakaar ni ma sàmba ma faatim ma penda la wax dëgg la. ah kon nag nangu nga slogan yooyu askan bi di génne. no so li ka waral. askan bi bu leen neexee slogan bu neenu génne ko loolu du problème slogan loolu du problème mais saa yoon génnee slogan slogan bu dee ci wàllu lu mu mënti doon. am na ci nguur gi ñoo xam ne waroon mën a taxaw expliquer leen ni leen di ngeen xalaat kat xanaa di gën a comprendre waaye lii ak lii moo am parce que su waxtaan woowu amul suñ indul boobu genre euh, clarification. Mhm. nit ñi dañuy dem ci lëndëm rek dem ci lëndëm rek di wax te alors que demul noonu moo tax euh, dina baax lool euh, ci jamono yi nga xam ne ci lañ toll nii. nga mm. xam ne jamono yu métti la ci àdduna mm-hmm. jamono yi métti la ci Afrique mm. jamono yu métti la ci Sénégal métti ci askan bi mm-hmm. dafay baax lool ku nekk fa nga ne ak la nga mën mm-hmm. nga dalal askan bi xamal leen ni seeni soxla xamal leen ni seeni mbëbët seeni coona loolu umpul nguur gi umpul ndawal nguur gi umpul président de la République je pense que loolu mooy tax nit ñi koo ci ni xaaral reer mu mën kaa xaar ndax koo déglu boo ko nee xaaral reer mu mën kaa xaar waaye nit kii euh, mais il faut mu am rapport boobu mais dafa mën a nekk ci cadre boo xam ne comme ko far waxee nanu tàmm miinal sunu bopp waxtaan ci dal dañuy xool wax na mu gën a rafetee nu waxee ko. Mm-hmm. nan xool jëf na mu gën a rafete nu jëfee ko. nan xool ànd na mu gën a rafetee nu ànd noonu ndax Sénégal gi nu toll nii de ak adduna bi nu mu toll nii ku nekk yaa ngi tiit te lu ko waral benn virus benn virus. virus boobu mu indi coono yi xoolal na tey ji ne su nekkoon ci fitna nekkoon yàlla yàlla mu euh, yàlla mu am mukk ci ay wàllu guerre ay rébellion ay xeex loolu gën a garaaw virus. Mm-hmm. bu dee virus rek moo mën a téye ku nekk sa kër ku nekk daw di nëbbatu ak di làqatu ñi noo dem marché ñi mënatunoo dem hôpital ñi mënatunoo dem liggéeyi kon dafa baax nuy xamal doomu aadama yi lan moo xew ak fan la réew mi toll waaye tamit su suñ leen ko xamalee nu d'accord ni nguur gi li leen wax lu mat a diglu la nu jëm donc loolu daal mooy situation bi mais sinon hmm. slogan moom vraiment euh, ku ne mën na kaa créer mais boo defee slogan ba pare nga déglu. léegi ñu dellu si ci kii bi cas bi nga xam ne mooy Akile. waaw en tant que ancien directeur des mines xëy na yow di nga ñu ci mën a leeralal parce que ba tey bu ñuy waxtaan ak askan bi dañ naan ñu de comprendre Sénégalais daal moom moo ñëw am contrat ak Sénélec ñu bëgg ko fee xëcc indi ay israéliens yu ni mel. tey dañu bëgg nga tënkal ñu loolu rek bu ko defee ñu mën a avancer. waaw xam nga bon euh, loolu dama danaan ko en tant que citoyen parce que seen euh, Sénélec énergie loolu euh, direction des mines du ko toppatoo. Mm-hmm. mais mën nañ la cee wax li nga xam ne ñun ci liñ jàngat ci mbir yi yëpp. Mm-hmm. nañoo ko gisee. Mm-hmm. alors te tamit dafa am ay raccourcis maanaam ay ay ay ay nit ñi suñu su mbir amee duñ xool mbir ma mu nekkee. waa dañuy xool ñoom nañu ko bëgg gisee bu ko defee nañu ko bëgg gisee noonu la koy nettalee euh, mais sooy xool euh, ci li nga xam ni moom moo disponible ci information. Mm. da ngay xool depuis septembre 2017 le ministre le directeur général Sénélec. Mm. Euh, defoon benn cérémonie publique boo xam ne invité tout le monde. Mm-hmm. wane ni am na benn société boo xam ne filialu Sénélec la. Mm. boo xam ne Sénélec am na ci 34 pour cent. ekk am na ay doomu Sénégal yoo xam ne noo ca nekk ñu tuddee ko Akili. Euh, information yi nga xam ne moom moo disponible tamit publiquement. di wane ni ni euh, mois de janvier euh, Sénélec ak Akili am na ay contrat boo xam ne def nañ ko. ba signé ko may leen pour nu mën a defar ay indi ay compteur nu leen lu waral loolu lu ni compteur yooyu dafay tax sénégalais bu ne sa courant nga mën kaa surveiller xool ñaata ngay consommer. Mm-hmm. directeur général bi nga xamante ji moo nekk ministre euh, de l'énergie waxoon ci jamono yooyu nii nekk naan nan wàññi courant nan wàññi courant loolu dëgg la waaye tamit kenn ku nekk consommateur bu ne. yow mi nga xam ne yaa moom sa courant bopp war ngaa mën a am say moyens pour contrôler ñaata ngay consommer ak loo consommer wul. xëy na loolu su amee dina gën a tax ñuy sakkanal énergie di gën a sakkanal suñuy poos. ñu ne léegi dañuy defar genre compteur yooyu nga xam ne foo mënti nekk ya donc loolu mooy situation bi. alors euh, tey jii donc moom moo nekk ministre de l'énergie. Euh, ki nekkoon directeur de cabinet ministre de l'énergie nekkoon conseil d'administration de l'énergie nu ñëw ni dañuy xoolaat contrat bi loolu moo fi ne. Mhm. nii dañuy xoolaat contrat bi. dañuy xoolaat contrat bi lu tax parce que xool ni contrat bi ba nu garantie yi nga xam ne jox nañ koo ko li day nekk loo xam ne day indi loraange ci Senelec maanaam Senelec te su naan Senelec na ngeen jàpp ni Senelec ñaar noo ko bokk. Mhm. mooy état bi ak caisse de dépôt et de consignation. mais état bi ak caisse de dépôt de consignation yëpp état bi la. kon Senelec yëfu état bi la. maanaam Senelec sa yëf la suma yëf la. suñu yëf la. teg suñu yëf ñun ñëpp danoo dénk benn doomu aadama fii ci réew mu nu koy mi nu mooy président la république. donc président la république ci xibaar yi ñu mu dajale. ndax moom dañ ko fee teg yaa ngi wax léegi ay pétrole. kenn waru noon nangam kenn waru noon nangam moom it dégg am na xibaar ci contrat boobu. gis na ni coow li bëri na mu dajale leen. donc mu nekk Massamba ba Albert ba Gomez ba euh, Abdallah ku mu mënti doon du nit ki la ñuy lijjanti mais société bi nga xam ni moom moo am relation ak société national Sénélec diggante boobu la donc buñ xool ni. dafa nekk sénégalais la ñuy xool ba dañuy xañ sénégalais dañuy fat euh, fat fat fat jàmbur déedéet mais intérêt Sénégal la ni président de la République nañ ko xool ci loola. léegi nga foog ni directeur Sénélec actuel bi moom intérêt Sénégal rek moo taxoon mu jóg pour renégocier contrat bi est-ce que kon loolu buñ ko ko nangulee tey est-ce que kon waruñu renégocier contrat yu bëri Sénégal. waaw xam nga xam nga. Sénégal rek moo tax ñu nar a négocier benn contrat boo xam ne sénégalais moo ko sekk ak nguur gi. est-ce que kon waruñu ne renégocier contrat yu bëri Sénégal fii fii fii euh, xam nga euh, damay faral di wax suma xarit yi naan leen euh, négociation ak renégociation contrat ci sunu réew yi nit yi suñ koy wax dañ koy jële ak doole ak xeex ndax xam nga ni avant ma ñëw fii dañoo négocier hmm. renégocier naa nii nii ba ma ñëw te pourtant xuloonu nu mais sénégalais bu ne renégociation rek mooy maanaam guerre nan geer waaw ndax dañ naan ki nga xam ne moo fi nekkoon di Moustapha Cissé jël contrat bind kee mu dem nekk njiit kee ñëw nekk directeur dindi loolu ne da ci da koy da koy saytuwaat loolu day maanaam day day am lu muy indi daal. ah non mais lu mu mënti doon logique. non lu mu mënti doon mais nit nit nguur am nguur mais nguur day signé contrat dem ba ci biir xam ne lim signé. gisatu ci intérêt moo woo kam ko signé loo ne ko kaan def la ni daal ñun ñëpp yow mi mën nga signé contrat ak fi nga nekk nii nga dem ba ci biir nga waa directeur nga ne leen waxtaanaat contrat bi mais tekkul daf la. waaw mais contrat yu rëy yi enjeu yu rëy yi ci dëkk bi. gisuñu ko quand même. non non c'est-à-dire que gis nañ fi yenn entreprise yu mag yoo xam ne ay tubaab ko jiite. Ah. ñu ñu jox contrat yu foire. waaw mais dégloo fi bërki dem ci baal ci expression bi te loolu kenn cee wax. tey bu ñu ñëwee ci lii di ci wax. bëgg renégocier moom. du tey xel déglu leen fii tout le temps ngeen dégg président ma ngay négocier ak renégocier ak waa Eiffage autoroute à péage bi mais loolu bu président bu koy négocier ak renégocier contrat bi état bi signé loon nu koy renégocier donc nan nañu di euh, toujours di am njort bu rafet man euh, moo tax toujours man ay terme renégociation ay yooyu euh, du lu ma faral di gën a bëgg dégg man daal su ma doon dégg naa nan waxtaan nan nii waxtaan parce que yow da ngaa bëgg wéet kii bëgg nelaw yéen ñaar war na mën a boole. te le président li mu wax it dem leen ngeen waxtaan. dem ngeen waxtaan parce que xam nga contrat bu nu ko signé toujours dama ko faral di wax bis bi ngay signé contrat soo koy signé ci nga naan ay am na lu ma fàtte ay su ma yëgoon nangal. Mhm. toujours am na contrat mënut a mat. ndax yu fi mhm. doomu adama la. Mhm. nga signé ko ak ñaari réew ba ñaar ak fu mu mënti doon muy Sénégal muy États-Unis ak fu mu mënti doon ci àdduna. contrat mënoo kaa signé nga ni léegi saa kenn du ko xoolaat. ñu ne waaw mais liñ ci sous-entendre ay Israël loolu tamit nga foog ni irrité wul opinion publique bi. waaw non xam nga ay Israël ak euh, beneen réew ci yem maanaam su naan ay israel dafa mel ni nun wóoluwuñu suñu bopp dafa mel ni nun israélien ak lu ku mënti doon noom nan ma baal ndax waru moon sax yëkkati kàddu yi mel noonu. Mm. mais israélien bu ñëwee day jàkkaarloog sénégalais xanaa dama leen ma israélien noom waroonoo mën a ñëw. admettons muy israélien muy espagnol muy italien muy es ku mu mënti doon mais négociation entre nit ak nit la du réew gi waaye dafa am solo ndax sénégalais tey mënul dem Israël di fa contrat ak euh, société d'énergie ba. non. Euh, duñ ko may loolu loolu fii Sénégal li ñu may yenn. xaw ma Israël xaw ma may ñu xaw ma sénégalais yi fenn ci beneen réew. dafa am toujours fu ñuy yemale mais Sénégal ngay gis keneen juge beneen réew ñëw. téye fi secteur privé bi loo xam ne. si nga nag benn affaire laa leen xam bi nga xam ne c'est un sénégalais de souche juddoo fi yaroo fi yàlla bu mu nekk un made in Sénégal comme ni ma koy waxee mooy koo xam ne fii la jàngee prouvé fee compétence am lépp bës bu taxawee di xëccoo dara mook ko étranger étranger ba lañ koy jox. bon loolu man. cas euh, boobu nga foog ne du loolu. irrité amul xëccoo déedéet amul xëccoo en tant que ak étranger liñ ci xam mooy. société bi ak Senelec signé nañ contrat état bi ma ngi waxtaan nag Akilee pour jéem a xool contrat bi leneen lu ci waay mënti wax ay dañuy indi israélien dañuy indi keneen loolu man xawma ko ca li ma ci xam daal mooy euh, état ak ki nga xam ne moo doon partenaire am ci wàll woowu noo ngi waxtaan nan jéem a fexe trouver une solution à ça c'est simple mais euh, li si des yëpp. ay considération yoo xam ni euh, amul pour man ci instant bi mu toll nii ak réew mi fi mu toll nga xam ni ku nekk yaa ngi jéem a xool nooy mucce ay israélien ak ay japonais man intéressé wu li ma intéressé fi ne nii mooy courant bi nga xam ne depuis 2012 dañ daan indi ay jafe-jafe ba tey réew mi nu fexe ba courant di am nu nekk ci jàmm na la mën a fexe loolu continuer na la ñuy mën a fexe bu loolu continuer ba gaz bi dikk ba lépp taxaw na lay mën a fex ba courant bi wàññeeku mm. njëg gi man loolu ma intéressé mm, mm. man leneen intéressé wu ma di jënt di jëntuwuma japonais di jëntiwuma keneen ku mu mënti doon man Sénégal moo ma intéressé intéressé njiitu réew mi li muy def loolu ma ci intéressé waaw xam nga euh, damay faral di déjà nan na remercier le chef de l'État parce que mesures yu mu war a jël bu mu ko war a jël jël na ko te li mel ni ay euh, Covid 19 nan jàpp ni du loo xam ni nun noo ko créer nan jàpp ni amul benn réew boo xam ne fii ci àdduna bu ci mucc nan jàpp ni réew yi nu gën a foor muy Chine muy Japon muy États-Unis muy Brésil muy Arabie Saoudite réew yi nga xam ne noonu gën a ëpp ëpp doole ëpp koom-koom. noonu gën a mettile fuuf fuuf fuuf jàngoro ji na mel seen dëkk kon moom bu jëlee ay décision dès le début ni xale yi étudiants yi nekk waan bu leen ñëw ndax soo leen ñëwee jàngoro ji ñëw fi loolu xel mu rafet la bu ñu demee ba ci biir mu jël ay décision ban xoolee ni booru Mbàkke am na luy nuroog jàngoro ji foofu mooy première mesure de confinement lañ def mu déplacer l'armée jéem a taxawal lu mel ni hôpital ci héliportu Touba. nu dawal tuuti mu xam ne lii mun naa indi jàngoro ci réew mi loraange nu tëj école yi tëj université yi école yi euh, nu tudd euh, euh, transport bi nu nu arrêté ko nu toog tuuti mu xam ne lii dina métti ci doomu aadama yi mu ni damay jël tolloog 65 milliards ci alalu réew mi mu tuuti mu bëri mu néew mu bëri ma jël ko séddale ko ñi nga xam ne am naa yaakaar ni noo gën a loru waaye séddale nag du mat waaye ñi gën a loru naa leen jàppale dama ni ak lépp tëj aéroport yi nga xam Sénégal nit ñi naan dama ko dikk touristes yi dama ko dikk nga xam lépp loolu yaakaar ci wàllu comme koom dañ koy jëli bitim réew loolu lépp su ko defee ba tey jii toll fu ñu toll nii yaakaar naa ni moom war nañ kaa mën a féliciter encourager ko ci lim ne mais nag. réew mi dafa nekk réew mu jafe dafa jafe ci wàllu koom-koom dafa jafe ci wàllu nekk waayu nit ñi ndax nit ñëpp sooy xool dañuy xëy soo ba ngoon jot daw di am lu ñuy lijjanti. Mm. kon xam nga ni moo indi ay jafe-jafe jafe-jafe gi mooy dem nañ ba ci biir chauffeur si yaa ngi dis yore seen i permis naan liggéeyatunu ni il faut nu bàyyi leen dawal président bi déglu ay citoyen yombalal loolu. waaye foog nga ne citoyen yi tey loolu yëpp ko koo dékku bu fekkoon ni. ci biir problème yii Covid 19 bi indi gis nañ ni nguur gouvernement yi leen di jiite ñu ngi doxal doxal bu dal xel mooy maanaam ci biir problème Covid bi amul ay ay scandale. waaw mais yow mais xanaa kon kon da ngaa wax àdduna moom <laughs> amul fenn ndax réew mi yëngatu boo demee États-Unis ñi ñi ñaa ay ay ay gouverneur naan non non dañuy am confinement dama ni la Covid bi àdduna la jaaxase. waa mais Sénégal spécialement scandale yi dafa rëy. dama ni da koy jël à terre rek yu gën a ndaw rek. barki dem da ngay gis tey ay nit yoo xam ne. Euh, te respecté nañ couvre-feu bi nga gis ay borom doome ñoo xam ne borom doole lañ ñoo xam ne dañuy am autorisation di dox ba fajar. ay de euh, kumba am ndey kumba amul ndey bi sénégalais yi di gis nga foog ne du loolu moo leen di irrité ba ñu nekk di. di di di di revendiquer yenn yi. non am réew président ñëpp la yemale ñëpp noo bokk yem fii ci réew mi amul ku yem c'est-à-dire que nag doomu aadama fii gis nga fi ay doomu aadama yoo xam ne dañuy def suñ ko defee da leen cee fekk dal seen kaw. donc ay kumba am ndey kumba amul ndey xam nga. du ñëpp de ndax gis nañ fi ay médecins foo médecins yoo xam ne dañ leen tëj libéré leen. man faux médecin du tey man foo médecin. gis nañ fi ay man mi sa bopp. man sama bopp laa lay wax gis ay xam ne trafiquant yu médecin xam ñu leen. faux médecin xam nga kañ am ci réew yàgg na am na benn théâtre boo xam maa ngi ko doon seetaan barki démb benn faux médecin nekk ca man gis naa benn foo médecin boo xam ne man xaw ma ko woon yàgg na ay jamono ay dans les années 2000 boobu yàgg na mu ñëw taxaw ni ma léegi. man xaw moon sax faux médecin la mu ma affaire yëpp ni ma léegi su ma neexee sama njaboot ak yëpp mu leen defal contrôle mensuel suñ avant muy dem après ci laa xam ne faux médecin la cest à xam nga am na loo xam ni euh, li may faral di wax nit ku nekk yaa war a jël ses responsabilités parce que mun bu nu yaakaar ni réew mi réewum président la république la déedéet président dan kaa woteel ni ko nun kat doy nga nu mais doy nga nu doy nga nu nun tamit nan góorgóorlu ci ku nekk ci la nga ne jéem a fexe réew mi dem mais bu nu yaakaar ni réew mi réewum niw la du réewum ma Samba du réewum ma Penda. donc nañ jéem a fexe ci li ñuy dox ak ci lu ñuy nekk nu jëm cee xool na mu gën a jubee damay faral dox naan yoonu jub amul mais nit ku jub moo am mm-hmm. yoonu jub jafe naa dis mais yoonu jub nit ku mooy jub nit mooy jëm a xool nan laa jéem a fexe ba ci li ma nekk baa ci li may def ak li may wax ma jub mais suñ la nee toogal nga ni tooguma suñ leen nee defal nii nga ni defuma ba pare bëgg ni président mun takar virus président boo xamul fu virus bi ne dem téye toog parce que moom lu ko gënal mooy réew mi dox économie bi dox nit nekk seen jàmm mais nit ki kan xamul fu virus bi ne noonu la toogal benn place nga ni damay dem. nga boo toogee gis ñi nga xam ne nii ay borom doole lañ te ñu nekk ci nguuru président moom. di dox te yow nga toog. di dox dem fan. di dox dem seen soxla am seen ay autorisation di dox ci mbedd bi. di def non amul kenn kuy yore autorisation di dox ci mbedd bi taxawal man loolu dus ma ko. ñun gis nañ ko. man mii wax ak yow damay liggéey. jox nañ ma autorisation mais autorisation seen saan mën na jëriñ dama amal parce que man dama koy def sama oto su ma xëyee dem liggéey su ma wàccee dem sama kër 5 heures fu ma jotee baa ngi sama kër pare naa ci donc ñu naan ay nit ñi dañuy yor autorisation dem ak déedéet xam nga euh, bu jaxase. ah loolu weesuwul rek cas boobu noonu Iba Thiam yàlla na ko yàlla yërëm xale yooyu noonu defoon fi dose bi ci biir euh, plein couvre-feu loolu rek firndeel na preuve la. ñooñu dina am autorisation. ñooñu amuñu autorisation. Ah, voilà c'est ça mu ngi doon léegi nag bi ñooñu weesoo. waaw ñun ci suñuy investigation man mii. waaw semaine bii nii rek dem naa fi Almadi fekk fi xale yoo xam ne dañoo am autorisation nekk ci ay endroit après minuit. waaw non autorisation. laa lay wax ni la autorisation jiitlante naag ñoom nii ci ci feu yi. policiers yi laaj leen ñu wan leen seen autorisation ñu scanné ko mu mu bu baax ñu jaar. waaw mais boo amee autorisation da ngay dem. waa léegi nag ñu bëgg jël. non mais non autorisation yi nga ji doole ñi nga xam seen bopp ko ñi di ataaya. ñu bëgg leen tëj seen biir kër yi. autorisation ak def lu bon bokkundoo autorisation bi di jox nit ki état bi di la koy jox. mooy autorisé na la nga déplacé wu mais mosoo benn yoon état muy jox autorisation nit naan ko demal defi lu bon. waaye war nañoo jox ay nit autorisation ñuy déplacé wu ci guddi gi di dem ci ay. restaurant lunch non kenn joxul kenn autorisation muy déplacé wu guddi. nu laa lay expliqué. waaw léegi ñi ma ñi nga xam ne man dama leen di gis. guddi gi man mii ñuy déplacé wu léegi ñooñu loo koy loo koy man am naa autorisation te kenn doo ma dee déplacé wu euh, dama dama nga def lu bon. moo tax ah. man la responsabilité nit ki nit ki ci boppam booy demander autorisation dafa am des conditions à réunir pour autorisation boobu c'est professionnel. transfert de corps urgence médicale c'était ça bu duggee site bi loolu la maintenant ku ci am autorisation professionnelle ku mel ni man ma jox ma autorisation professionnelle nga xam ne liggéey wàcc dem ma war a wàcc dem tëddi defuma ko nekk ci leneen loo xam ni ci autorisation bu ma jox ci laa koy defee mais loolu loolu état bi tox la moo koy jox donc il faut que nit ñi bañ a def amalgame boobu man autorisation yi ma jox du pour dem def leneen lu bon pour liggéey la su ma liggéey pare ma dem toog suma kër donc mais soo jëlee autorisation professionnelle dem defi leneen loo xam ne bokkul ak li taxoon na jóg mais état bi mënu ci dara nit ku ne la danoo toll ci jamono joo xam ne il faut que moom des responsabilités nekk xam ni fi ñu toll nii jamono ju ñu toll nii danoo war a àndandoo xeexandoo yëfi mais pas nit ku nekk yaakaar ni tey jii Covid bu yàggee ci réew mi day yàqal président ba day yàqal Massamba ak Mademba gis nga ay réew yi nga xam ne États-Unis gis nga la fa xew gis nga Brésil la fa xew. donc nan def ndànk. nan def ndànk waaye fi mu nii foogoo ni askan bi sonn sonn boo xam ne toog ko tamit di magnifier euh, liggéey euh, bu gouvernement yi euh, war na. yëg ni askan bi du ko attan benn moo tax président. li naan confinement amul moo tax su ma déggee sax sa bokku journaliste yeeg yooyu naan Sénégal dañoo déconfiné ma leen mais kañ leen fi confiné confinement amul foon. non confinement non donc te pourtant réew yi nga xam ne am nañ moyen dañoo def confinement mais président ci dalam. ci xam-xam li mu xam réew mi mu ni jarul nuy àgg foofu waaye nañ jéem a xool nan la ñu koy regle kon confinement amul Sénégal deuxièmement ba mu demee ba ci biir xam ni lii muy commencé indi jafe-jafe ci biir askan bi xamoon na leen ni kat jëf yi metti na jàngoro jaa ngi fi te dina yokk waaye nag mën ngeen a dellu ci la ngeen naan def waaye boo cee dellu na ngeen ci ak matukaay yi. Mm-hmm. nag nit ku nekk nag yaay xool yaay xool li nga xam ni war na la nga def ko. mais doo xool ni lu la neex rek na nga koy def parce que bu doon feebar la boo xam ne yow bu la dalee yow dong lay dal yàlla na yéex bu la yóbbu àllaaxira yow lay yóbbu mais ko y' a pas de mais bu dee yow li la dal soo rombee ma sàmm wàlli ko demaat ma sàmm non mais da ngay donc il faut mu am esprit citoyen moo tax euh, sunu euh, sunu réew mi yaakaar naa ne suñu jógee ci affaire coronavirus bi war nañoo xalaataat ci yar waxuma la instruction mais éducation. parce que soo xoolee jafe-jafe yu ëpp yoo xam ne nguur gi jànku dina ko ko mooy mu ngi jëm ci yaru doomu aadama dafa mel nit ñi ki leen naan leen toog leen moo leen gën a bëgg seen bopp dafa mel nit ñi ki leen toogal sa kër moo leen gën a bëgg seen wér yaram dafa mel ni ki leen naan leen bul def nii te alors nit ku ne waaye éducation kese nga nga foog ni mooy cause loolu noonu. ah manque de communication wala wala wala une communication pas au niveau ni au modèle de la sensibilité. manque de perceptrice Sénégal des Sénégalais. dama ni. est-ce que def nañ. depuis premier janvier ba léegi dama ni kon boo xam ne sur mesure nga xam ne sama réew sama askan nii lañ mel xaaral ma ut communication bu conforme pour mën. dugal seen bopp yi loo xam ne dinañ jël seen responsabilité ba lu bëri xëy na du du du du am. communication bi ngeen di wax ñenn rek ñenn rek laa xam ci réew mi ñenn rek ci réew mi laa am yaakaar sax wóoruma laa am yaakaar ni communication bu àggu na ci noonu ñeen rek xamoo ñan. Mm-hmm. ñi ci sëg yi ñi ci sëg yi daal laa yaakaar ni xëy na communication bi àggu na ci noonu mais sinon amul benn Sénégalais boo xam yëgoo ni coronavirus am na. yëgoo ni lii la koy joxe yëgoo ni xamoon na ni raxasu sawleel masque defal distance ñëpp ko xam. waa léegi loolu yëpp buñ ko xamee tamit te ñu gis ay information ay fake news ak ay affaires yoo xam ne c'est inadé c'est incohérent à ça nga foog ne dinañ ko gëmati du loolu moo indi ñëpp a ngi ci mbedd bi fi mu toll nii ci plage yeeg fu ne. ñëpp a ngi ci mbedd bi parce que démystifier nañu wax. sooy wax ak nit. mu lay gëm ba jékki-jékki gis la yow ngay mel naka sudul noonu kooku dina la toppati. waaw non dama ni xam nga jamono ji ñu nii ku ne yaa war a aar sa bopp te képp ku naa da nga kaa démystifier ay ca da ngaa ay ca démb laay am sama benn waa joo xam ne maa koy woo ci guddi ndax kaa soxloon ci benn wàllu liggéey benn ouvrier la ma woo ko mu ne ma dafa corona. ko acca c'est-à-dire que du jàngoro joo xam ne gàccee nga ci waaye yàlla rek moo xam. Mm-hmm. yàlla rek a xam. Mm-hmm. kum yu dal ak kum dul dal mais du du jàngoro ju bon. Mm-hmm. du du du du du du gàcce waaye nan moytu. nan moytu parce que loo xam ni amul garab tey nga dégg nun la hydroxychloroquine su gannaaw suba nga dégg nun la euh, euh, euh, tuberculose lan koy faje da koy faj ñi naan la nangam artemisia ñi naan la lii ñi naan la lële ñi naan la naanal di kenn xamul. ñun ñëpp ñu d'accord ni am na lu ko war a faj mais xamuñu lu mu doon mais man kay yoon bii rëdd bii boo ci jaaree dund rëdd bee boo ci jaaree sa tànk damm même bu dul dëgg man damay jaar fi nga xam ni <laughs> su ma ko jaaree dund waaye duma fi nekk naan xale man damay jéggi rëdd bi nga xam ne naan boo ci jaaree dund. Mm. donc fi ne jamono ci fa lan toll. Mm. donc vraiment na nit ñi gën a ànd ak responsabilité. Mm. et puis tamit di déglu nguur gi euh, surtout mercin yi. parce que lii affaire médecin la du affaire u sëriñ du affaire u keneen mm. médecin yi ñoom noo nekk ñi nga xam ne noo war a joxe orientation bi naan nañ def lii nan wax lii mm. te lu jara gërëm la noonu ñu jara remercier ñu jara féliciter et encourager parce que lu jafe la lu metti la mm. mais que Sénégal tamit nu jum na ci jàppale yow tamit euh, docteur Cissé ñu ngi lay sant di la gërëm ci wuyu bi nga wuyu ci wuyu si ak waxtaan bi nga jox askan bi fii si suñu émission comme politique si leeral point net leeral TV di la wax nga joxe sa kàddu bu mujj rekk euh, la population. waaw di lay remercier et puis di jéggulu population yi ci fekkee am na benn kàddu goo xam ne yëkkati nañ ko euh, te euh, tegginuwul ba loo xam ne du lu war a wax nu baal na ci àq rek xam ni matadi doomu aadama la. waaye sunu mbébét lépp sunu yéenee moo doon waxtaan ak ñoom ci wax joo xam ne wax ju sell wax ju dal wax joo xam ne dina mën am njariñ mm-hmm. te di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yàlla yàlla defal na sutura yàlla aar njaboot gi yàlla saxal nu ci jàmm ngi nekk ni yàlla dàqal nu li nga xam ni moom mooy jàngoor ji fi nekk et puis di lay remercier di remercier toute ton équipe ci euh, invitation bi ngeen ma defal euh, di leen di encourage te yaakaar naa ni euh, occasion yi dafa baax xam nga di waxtaan surtout ci kàllaama yi nga xam ni sénégalais yi xam nañ ko. Mm-hmm. parce que loolu dafa am solo lool. Mm-hmm. parce que sénégalais yi bëgg na noo xam. Mm-hmm. te te jàng nañu ci fànnin woo xam ni li ñuy waxtaanee nii fi ne boo fi génnoon léegi ñu wax la ne dégg naa nangam ak nangam. kon di la ci encouragé. di leen di remercier et puis di vous encore euh, une très bonne chance. Mm-hmm. que vraiment sama bunt ubbeeku na. Mm-hmm. bu dee am na leen loo xam ni euh, lu matul la ci li ma wax. Mm-hmm. Euh, ñi suivre télé bi ñi suivre émission bi yaakaar ne war naa ci mën a dellusiwaat. ba war naa ci mën a indi yeneen leeral. samay bunt ubbeeku na bu ko defee nu wax leen. ndax nu lool moo ñu fi tax a toog te ay Sénégal ñoom te buñ sañoon suñu réew man su ma sañoon Sénégal. mooy dàq Makka su ma sañoon Sénégal mooy dàq Jérusalem su ma sañoon Sénégal mooy dàq Vatican su ma sañoon Sénégal adduna bi yëpp dañuy daw di ut Sénégal moom fa laa toll donc bu ma disee doomu Sénégal boo xam ne bëgg na avancé dama ko cay jàppale su ma disee Sénégal buy dem dama cay ne mm. loolu daal laa moo di wax te di les sant encore une fois di les remercier mm. Euh, jërëjëf euh, mbokk yi doon seetaan fii si leeral point net leeral TV canal 33 ngeen nekkoon seen émission comme politique comme ni ngeen ko xamee rek ñu nekk toujours euh, di wax ci actualité mais di invité ay ñoo xam ne ay kàngam lañ ay expert lañ teg leen suñu plateau ñu faram fàcceel leen actualité bi ba ngeen am ci information yu leer te wóor tey nag ñu dalaloon docteur Cissé Ousmane ancien directeur. mine et géologie mu waxtaanal ñu ci pétrole bi nga xam ne déggatuñ ci lu bari waxtaanal ñu ci gestion Covid bi waxtaanal ñu ci aussi dundinu askan bi ak yu bari bari ñu leen di jox rendez ci seen beneen émission comme politique fii ci leeral point net leeral TV di remercier bu baax équipe technique bi yëpp ci kaw ba ci suuf jërë ngeen jëf. Enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. I see where you work, journaliste you